jaa ngeen jëf mbokku internetu Allô Sénégal ci contentement la ñu am saa su ne di leen indil seen actu du net ñu daal di ko door ak Mouhamed Ndoye Mouhamed Ndoye nag nekk journaliste fekk Seneweb gannaaw 72 heures li nga xam ne rek waa Pastef defal nañ ko ko daal di génne ay photos ak i vidéo yi nga xam ne rek daanaka yàggoon na loolu gannaaw ab débat télévisé bi nga xam ne rek moom Mouhamed Ndoye amaloon na ko jëmale ko ci ki nga xamante ne rek mooy gouvernement bu bees xaalis bu yees bi nga xam ne rek moom la am waa Pastef nag daal dinañ ko defal lépp boobu ndax dina jur jàmm ci Sénégal la question boobule moom la ñëpp daal di samp gannaaw loolu defaloon nañ ko fi ki nga xam ne rek mooy roi des arènes di Lo gannaaw ba mu àddoo jëm ci Biram Souley waaye it defaloon nañ ko ki nga xamante bi nga xam ne rek moo nekk fii ci Sen TV moom nag nekk tey sax daal dina defu post di wax ni rek li nga xam ne moom lañ ko def yëngalu ko benn yoon ndax grande tête la ñu daal di amal affaire gannaaw loolu dinañu wax ci a coowalum pis bi nga xam ne fi mu toll nii Sénégal ñëpp ñu ngi addu di ci jëm Ndeye Ndiaye Bandeya pis na ki nga xam ne rek mooy Alioune Seck loolee nag fu mu amee ci li nga xam ne rek mooy soirée Wally Seck bi amoon nekkee samedi ñëpp naan xool na ko xoolu ko loolee nag nekk ab sénégalais nekk ab question bi nga xam ne sénégalais yi ñoom ñëpp ñu ngi ci bàyyi xel mu mel rek vidéo yaa ngi circulé ci li nga xam xam ne rek mooy réseau yi waaye maa ngi dégg it ñeneen di wax rek ni ki nga xam ne mooy Khadija bu leen jàppee di ngeen xam ne seen yoon nekku ci mi ngi noonu bu ñu jógee ci loolu daañu wax carnet ak ki nga xam ne rek mooy Pawlish Mbaye mu mel ne rek Pawlish daal dina am ñaari bébé maanaam ay jumeaux loolee nag ki nga xam le du kenn ku dul le boss des négri démb ci ab laay fam la ko daal di xeble moom moomee ñu koy ñaanal rek bébé bi yal na dund te am ndey ak baay gannaaw loolu anif bi nga xam ne rek dox na ci diggante Wally Ballago Seck le golden boy de la musique sénégalaise gis ngeen li nga xam ne rek mooy image yu rafet yooyu oh c'est mi ngi noonu ki nga xam ne rek mooy jabaram ci moo ko ko daal am lal muy surprise bi nga xam ne rek ñëpp daal di woon nañ ko teewee ñu dekk di ko ñaanal ay at yu bari bari bari Allô Sénégal di ko ñaanal ay at yu bari bari bari gannaaw li nga xam ne rek mooy people dañuy daal di waxtaanee société. nakar ak tiis lañ koy daal di dooree rond point EMG benn bus daal dina fa rek daanu waaye it ba mu daanoo kenn daal dina ci ñàkk bakkanam ñu di ko ñaanal rek euh, fi mu jëm gënal ko fuuf euh, fi nga xam ne rek fii la jógee waaye it euh, mu am ay gaañu gaañu ñu bëri ñoom it ñu ngi ñaan yàlla daal di fëgg seen bopp bu ko defee rek ñu mën a delluwaat ci seen njaboot ba tey ci naka raktis boobule la ñuy daal di desandi ak ñi nga xam ne rek ñooy pèlerinage ay pèlerin yoo xamante ne rek ñoo jóge fee ca Mauritanie doon ñëw fii ci Médina Gounass mu mel ni dañ doon ndaw ba mu yàgg rek seen bus ba daal tàkk ñàkk waaye bu mu tàkkee kenn ñàkk ci bakkanam waaye li nga xam ne rek mooy seeni bagage yi nga xam ne defoon nañ ko ci oto ba lépp daal di rek tàkk ba mu jeex bu ñu jógee foofu Dakar dem dikk syndicat bi daal di nañu samp grève lu ko waral dañu rek def ay recrutement yu bees yu yees ñoom nag d'accord ñu benn yoon ci li nga xam ne rek mooy recrutement ya ba tax ñu daal di samp seenu grève te di wax rek ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye na rek xoolaat lu ni mel bu yebu duñu rek dakkal li nga xam ne mooy grève gannaaw loolu dina ñu wax ci lu soxal ki nga xam ne rek mooy Mbayang jóob Mbayang jóob nag nekkoon ab sénégalais fii waaye daal di dem fee ci Arabie Saoudite lu mu fa doon wut Mbayang jóob doo fa liggéey gannaaw liggéey ba rek dañ ko daal di naxoon yóbbu ko foofu tekki ko naxoon di kenn ku dul Habib Diop moom nag mu daal di fa rek am ay jafe-jafe mu mel ni dañ ko faa condamné woon à bañ ko condamné nag à mu mel ni rek xale yi ñoo war a majeur ngir baal ko war a duñ ko baal 2032 la ñu nar a majeur famille nag daal di génn fi ñu toll ngir rek ñaan ki nga xam ne mooy président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di ci jël dogal nu mu daal di gaawee dimbali leen ndax moom moomee di Mbayang Diop dafay daal di bàyyi ab doom bi nga xam ne rek ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom-ñaar maanaam 17 ans gannaaw société daanuñu wax ci politique politique bi nag dafa daal di tàggatémbe comme niñ koy waxee chaque jour ak ki nga xamante ne mooy président bu bees bi bi ñu am di euh, président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom nag gannaaw ba mu amalee ab dox ab mboq fee ca Touba amal ko fee ca Tiwaawan daal dina ko amal fee ci fi nga xamante ne rek mooy juma omarienne omarienne fecc ajjuma ja fa la daal di jullee gannaaw julli ba nag amal na fab discours discours bi nag nekk discours bu dal discours bu ànd ak yax waaye it discours bu ànd ak teggin daal di fa rek yëkkati lu toll nii li nga xam ne rek mooy ab cousinage ci diggante pël ak séeréel waaye it daal di fa rek yëkkati ay kàddu yoo xam ne rek jëm na ci lu soxal Sénégal waaye it jëm la ci lu soxal euh, li nga xam ne rek mooy àdduna wëlngal këpp gannaaw gannaaw loolee ki nga xamante ni rek mooy euh, PM di suñu premier ministre bi di Ousmane Sonko moom it daal dina woon am ab ndaje ak ki nga xamante ni rek mooy Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop nekk président commission UEMOA moom nag it daal dinañu amaloon li nga xam ne rek mooy ab waxtaan ci lu soxal li nga xam ne mooy développement dëkk beeg réew mi waaye it ki nga xamante ni mooy Barthélémy Dias daal dina rek soxla ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye ngir rek ñu mën xam ne rek mooy mairie bu Dakar ngir rek moo mun ko présenter li nga xam ne rek mooy politique municipal bi waaye it ces grandes lignes ba tax moom Barthélémy Dias ma ngay sàkku di gis ki nga xamante ne rek mooy président Bassirou Diomaye Faye gannaaw loolu Dame Mbodj daal dina yeesal li nga xam ne rek mooy ab plaintam bu mu amoon ci régime bi passé di wax rek ni taxawuñu ko gannaaw ba mu defee woon ab émission fee ca TFM génn rek ñu daal di ko agressé daal di ko dóor lu toll ci juróom-ñaari bal ci ginnaawam oto ba mu mel ni rek fi mu toll nee na moom surprise lay dund lépp lu mu dund rek dafa fekk ni deewoon na ba pare moom daa mbocc moo yëkkati yow yi lay kàddu fi mu toll nii nag daal dina rek déposé waat li nga xam ne mooy plainte ba te di rek ñaan ñi nga xamante ne rek ñoo ca war a taxaw ñu daal di ca taxaw nu mu waree gannaaw loolu dina dinañu wax lu soxol tàggat yaram ak li nga xamante ni rek mooy làmb yi fi jotoon xew a nekkee démb Quench la daal di daje woon ak ki nga xamante ne rek mooy Alioune Seye Alioune Seye nag da dóor mu daal di daanu waaye it ki nga xamante ni mooy Jacob Baldé moom it daal di woon dajeek ki nga xam ne mooy Albouri raxas ba mu set denc mu ni rek Albouri moom it dañ ko rek dóor ba mu daanu mu mel ni làmb yooyu lañ fi daal di amoon démb gannaaw face to face bu amoon ci diggante Eumeu Sène ak Sa mu nekk làmb ju neex mbokk yi gi di leen jox dig daje ba suba incha allah même heure même fréquence même lieu jaa ngeen jëf.